beneen responsabilité bi mooy suñu responsabilité ci réew mi damay wax ni ku sañoon sa réew jëm ci sa kanam waaye bu ñu fàtte ne àdduna bi moomuñu ko binduñu ko defaruñu ko ñu nit moomuñu suñu bopp dañ ñu fi indi ki ñu fi indi nag am lu mu bëgg ci ñun loolu nañ ko bàyyi xel benn. beneen bi mooy ku ci nekk ci réew soo fa nekkee citoyen am nga lu la fa war am nga it lu la fa warul beneen bi ci des mooy nit ni mu xalaatee ni diw politicien diw moo dal xelam ba ku ko jox réew mi mu mu jëmale ko kanam na nga may sa moroom it mu am xalaatu ne moom kële la faral mais su ma gisee coow loo xam ne lu ko indi yow diw nga faral soo déggee nga ne kële kële la faral nga wax ci moom lu la neex loolu du xalaat waaye malheureusement dafa nit ñoo xam ne pour ñoom la terre tourne autour autour d'eux pour ñoom ku ñu faral rek kooku mooy waa ji kenn waruñu faral keneen surtout suñu déggee ni yow ci ñi nekk ci nguur gi nga faral waaw nit ñi pour ñom yow comme da nga dañ la corrompre wala sangam wala sangam ak lu ci mëna doon fi ku rombon ñaari ginaar yu xex sax sa yon nekk ci mais di nga taxaw setan am ko faral li bëgg wax moy ni nga amé xalaat xam-xam nat ni man ki moy jëmele rew mi kanam mayal sa cerespe, ci respect momit mo am ko mu fii nag xam nga lu fi nekk ñaaw njort ak rafet njort yow ki nga faral toog di ko tagg ah dëkku leen àndu leen bokku leen bureau sa njort boo rafet ci moom ki ngay xas nag naan moo def sàngam te dëkku leen séqu leen dossier nga naan ko sàcc nga escroc nga sa ñaaw njort la nit nag am nga droit rafet njort mais nanga nga respecté wu keneen man aka maa tiit faraloo diw ñu wax ci moom ki wax ci moom xamoo li tax mu wax ci moom xamoo lu nekk ci ginnaaw boppam Sénégal wala suñu réew mi ndeysaan diw de franc la aka mu ñoo yomb da ubbi ci net bi ñu ne diw de franc la mu tombe ki ñu ne franc la faraloo ko rek nga partagé commenté wax ci lu la neex te yàlla xam na ni dara wóoru la ci xamoo sax luy franc-maçonnerie diw góor jigéen la diw escroc la rek ngay wax parce que faraloo ko gars yi bakken jarul yooyu yëpp